xar bu loolu lay wax ah fa layta saaliata samsayni qad afalat wa layta xaibata samsayni lam taxibi wa layta ayna allati aaba nnaharu biha fidaaw ayni allati zaalat wa lam taubi daanaka loolu lay nidu rek mu ne xar bu loolu lay wax dina ko baax a baax ونهاره بچك بغرب مزبانا في ابن ناصر بچه ليس بأبيض دعا تدل لير والليل قد نك إذ وافاه بإبن ناصر دكالي غرب ليس بأسود دعا تدل نيول waaye bi mu ñëwee leeram tax na guddi lëndëmatut ndax jant la buy leeral xol yi samsun nahaari mooy so ci guddi waaye samsul xoloo samsul xoloo bi moom laa taxiibu moo tax baax na foofu ba beneen yoon insa waafafa asraqatil biladu waaye naat sumurul muna min kulli farain munqidi تعتز عن طرب كمظلم مهمه سيما ضلال فلاح بدر منتدي وتقول أهلا بالإمام ومرحبا قول الربا للغيث بعد المشهد farahal mubashari bil gulaami bu aydama ya'sin wa madlumin hadimin munjadi falyahdihi hajjun wa hajjun asraqa fi ufqi majdin qad banaahu musayyadi baax na foofu wa ma'aabuhu kasamsi tatlu ba'dama hujibat bi nuurin saatain mutajaddidi mu ne waa faa dikk na moom sayid ibnu nasirin faa faraqat dal di leer al biladu dëkk yi mu ne sayid ibnu nasirin dikk na fii ci xarbu xarbu yëpp leer xam-xam bi dikkaat barke bi dikkaat njub gi dikkaat ñëpp gindeeku ñëpp baax ñëpp tedd loolu mooy lim bëgg a wax rek tabarakallah dégg nga waaw mu ne waa faa dikk na mu faa faraqat topp jolli albilaadu dëkk yi waaye naat te ñor sumurul munaa meññet yaa ñoom mébadi la min kulli pareen ci bépp banqaas munqidin bu daa ji mu ne mébadi yëpp daal di ñor mooy ni ma la waxee ñëw na xam-xam bi dikkaat na njub gi dikkaat na eh, barke bi dikkaat na ñëpp a ngi gindeeku ñëpp a ngi baax ñëpp a ngi tedd itam te su dana ñuy jaayu ñoom dëkk yi an tarabin ngir mbégte su fekkee an bi harfu ta'lil la mel ni wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlik mooy dañoo bég bay jaayu wala tahtasu dana ñu jaayu an tarabin ci gannaaw mbégte bég mel ni commandé ca mbég ma moom la ñu def dal di jaayu ka muslimi mahmahin mu ngi mel ni aji ñu ngi mel ni aji lëndëm tuy xàll siima kub toggees na ko dalal réer falaxate feeñ badrun weer munta din wuraaji fenk mooy dañoo mel ni kuy lëndëm ci biir xàll weer fenk dafa am lu ñuy junj moo tax arabiyu la woon boo xam ne gëlëm moom dafa muy ko wut te jege gëlëm gi lool waaye lëndëm gi tax mënu koo gis ci loolu la nekk ba weer wi féq bim leeree rek mu gis gëlëm gi ci peggam mu xool weer wi wax ne mada aqulu wa qawli fiika du xatarin ma lu may war a wax man de fa tëju waqat kafaytani tafsila wal jëmala man pour man mënuma waxi fasale jëmale ci yow mënuma wax waxi ma mbasan jëmale ci yow ndax pour ma tagg la lu ma fekkoon ñu xam bu yàgg lay wax pour ma ñaanal la luma ma nga am bu yàgg laa de wax in qultu la zilta marfuan fa anta kasa su ma la ñaanalee kowe fekkoon naa nga kowe bu yàgg aw qultu zanaka rabbi fa huwa qad faala loolu moo tax xamu nu may def de mu ne gaa ñi itam dañoo bég waaye den mbir mi xawuñ koy mën wan sax sëriñ bi ndax wax dëgg yàlla ñoom seen dayoo xam-xam du dara ci fi sëriñ bi toll loolu moo tax mënuñoo wax wax bu tolloo ak moom te te su danañu jaayu ñoom dëkk yi en tarabin ci gannaaw mbégte ka moo da limee mahmahin demel ni aji lëndëm tuy biir xàll siima kub togget na ko dalalu réer falaxa feeñ badrun weer mun tadi wu daaji fenk wata koolu danañu wax ñoom dëkk yi ne ahlan fil imami wa marhaban baat la bu ñuy yaatalee gan ahlu mooy ñooñ dañ ko nasab ak fi'lu buñ fi asabee ñu naan ahlan bika wa sahlan sahlu mooy beeñ mooy saadafta ahlan wa watita sahla mooy dem nga ci sa kër aussi dal nga itam fu neex dal loolu la ñuy wax marhaban mooy tatagal qawla ruba kem wax ay tundu lil xëy si ñaal taw baada mi mishadi ci gannaaw ak beekoor dikk ak ibnu nasirin ni mu defee jeexital ci xarbu mu ngi mel ni rek bu fekkee dañoo nekk ci jamonoy beekoor ba nga gis xàll bi lu ne maral gi laal ko mu taw ba lépp màndi ni taw bi di jeexitalee ci xàll bi ci gannaaw maral gi dikk ak ibnu nasirin noonu la mel ñii bég faraxal mu ba sori mbégam ku ñu bégalee bil xulaami ci gune bu ay dama sin ci gannaaw ak naagu wa mazlumin ak mbégam ku ñu tooñ xadimin ka de ku ñu mun jadin ka de ku dimbale mu ne koo ba foog ne dootu am doom ñi bégalee ko doomu góor na muy kontaanee ca xéwal ga wala koo xam ne dañ ko doon not ba mu foog ne coono bii mooy wéy mu am ku ko dimbale ba mu xettale ko na muy kontaanee ca ndimbal la mu askanantoog ni waa xar bu kontaane ci ñëw ak Sayd Nasirin bàyyi ko ci ajam gi ñuy bég faraxal mu ba sori mbégam ku ñu bégalee bil xulaami ci gune bu ay dama yasin ci gannaaw ak naagu wa madlumin ak mbégam ku ñu tooñ xadimin kade ku ñu mun jadin kade ku ñu dimbale mu ne na ko ndokkaloo moom Sayd ibnu Nasirin hajjun haj wa hajjun ak haj dafa haj Makka ñaari yoon pour mu ne hajjaani mu bàyyi ko mu tas na mu mu indi ñaari mufrad mu ëtti fante man naa am loru wéy moo ko ci hen ah baat bi su fekkee da ngaa soxla ci mufradam lu ëpp benn su boobaa indi euh, tasniya wala nga indi siixatul jame waaye xaajihul ngay indi ay mufradaat mutaatifa masalan tey ñaari gaa ñoo ñëw pour nga ne jaani rajulun wa rajulun eh, du ko jaar da nga naan jaani rajulaan su fekkoon ñetti gaay ñooy ñëw pour nga naan jaani rajulun wa rajulun wa rajul du ko jaar da nga naan jaani rijaal su du way kon xaj na loru way moo tax fi mu waroon waxee falyani hajjaani mu ne falyani hajjun wa hajjun wa sanni wajma la tuatifan bila daruratin jamia ma qad qabila baat bi gannaaw nangu na tasniyal wala nangu na jam xool ngeen la boo soxlaa ñaari mufradam tasniyal rek boo soxlaa ay mufradatam jam xoolam rek ah wasanni wajma la tuhatifan bila daruratin jamia ma qad qabila buy lor wéy nga nangul nga def takarur mufradat kon xëy na loolu la faliyanihi na ko ndokkaloo hajjun haj wa haj asraqa yooyu fenk nañu fi ufqi majdin ci goxab tedd nga xat banaahu bëgg tabax na ko musayyadin gëre gu ñu yëkkati mu ne ñaari haj makkaam yii nga xam ne gum ci mën a doon ba koy haj boo maqaama yu kawe la toll ci boromam ñaari haji makka la yoo xam ne su ñoom rek la am ci yiw sax jot nañ doy nañu bégee doy nañu doy nañu ndokko wa ma abuhu del si moom sayid ibnu nasirin que som si ni ki jant bi rek tatluwa dana mu fenk moom jant bi baadama hujibat ci gannaaw bu hiidee seeko bi noorin ci leer satain gudaaji jolli mutajaddidin gudaaji heese mu ne jant bi bu soyee buy fenkaat dafay mel ni leer gu bees la andi sayid ibnu nasirin sam diir bi diir bi mu faddu bi mu ñëwee dafa doxaat wéttalu bees dafa indiaat wéttalu dafa doxaat wéttalu bees mel ni ku heese la gis nga ko bu baax a na fàttu gi diit dafa leen a kim dox dégg nga ah seetlu nga ko baax a baax a baax ah nu mu koy waxee waaye wa toolu muqabil mar'i fil hayyi mughliqun li dibajatayhi faxtarib tatajaddadi mu ne bi bu set yaa ngi fi doo hendu fenn doo fanaani fenn bi bu set yaa ngi fi ba noo tollu itam janoo giñ janoo yow heure bu nekk duñ ko xawatee xam kon soo bëggee léeg-léeg nga mel ni ku xees ci ñi nga nekkat da ngay fàttu diit bañ na ma la xel bala daj ca fa nga pare woon su ñëwaatee nga doon ku xees wa toolu muqaamil mar'i fil hayyi mughliqun li dibaajatayhi faxtarib tatajaddadi mbir mi haj Makka la waaye defe naa ne ixtiraab bi waral tajaddud itam ah bokk na ca bokk na ca waaw ne boobu moo tax ne wa ma'aabuhu dasim moom Sayyid ibnu Nasirin ka samsi mu ngi mel ni jant bi rek tatloo dana mu fenk moom jant bi ba'da maa hujibat ci gannaaw bu hiilee seebo bi nurin ci leer satin guraaji jolli mutajaddidin guraaji eese ana idaatu in wax ni naa bi liqaa'ihi mahfuudatan saahatuhu naylul amaani ruxadi yaa hirsa kulli muwaa'ilin wa giyaasa kulli mu'ammilin wa siraaja kulli muballadi waafatka bikrun bintu fikrin sadirin tujla hayaan fi ridain mujsadi bal hamsu hajifa musnitina taluffuhum hojur riyahi ilal kirami ruffadi hudiyat birahti lafaraini wa amjadat bil haydi wal yadidi kullal mamjadi sabaqa ah? baax na foofu mu ne waliyah ni naa na ndokkaloo ñu ñun naylul amaani ham mebadi arrugati yede way yaatu bi liqaa'ihi ci dajeeg ibnu nasirin mahfudatan mbir moom muy ku ñu wattu saahaatuhu ay dingireem mu ne ñoom nasiriya ñibsig ibnu nasirin bi salamatin wa ñu dajeeg moom mu nekk mahfuuzan bi inaayatillah mooy loolu doy na leen mbég ñoom loolu doy na ñoom ndax xam nañ ni ibnu nasir rek seen léppay jag waliya naa nañu ndokkoloo neelul amaani xam-xam mébadi arruxadi yede way bi liqaa'ihi ci daje ak ibnu mahfudatan mbir moom de ku ñu wattu saxaatu ay dingireem dañ ko doon jàng démb léegi xasida bi ni muy taggee sëriñam yëpp pare na wax waxi jébbale xasida bi am moo des ndax itam nag mu ngi fi bëgg-bëgg am na yaakaar ci ki muy waxat loolu moo mu wax waxi ku bëgg dara ah mu ngi ah te am na yaakaar ci ki muy waxat mooy dafa mu wax waxi bëgg dara gis nga bu baax a baax te itam gis nga bu baax a baax ci lay wax ne yaa xirsa kulli muwailin yow làqu waayu bépp aji wéeru yow mi nga xam ne ku bëgg a mucc doy nga wéeru waay waxiyaasa kulli muammilin tey xett la ko waaye bépp aji yaakaar yow mi nga xam ne ku am yaakaar ku ne yaakaare nañ ci sa barke fajug haajo wa siraaje kulli muballadin tey lampa bépp aji gëlëm yow mi nga xam ne sa kaadaa nga tax na nga nekk làqookaay sa barab di rawukaay sa tëdaa nga tax sa barab di jëggukaay sa xam-xam taadan sa baral si jàngukaay yow mi dajale ile yaa yaa yaa yaa xifda kulli muwailin e yow làq waayu bépp aji bëgg a mucc wax yaa sa kulli mu am melin te xett ndek waayu bépp aji yaakaar wa siraaje kulli mu balladin te lampa bépp aji gëlëm waafat ka dikkal na la bikkirul xiig mooy jànq bikkiru dañ koy jëfandikoo day jublu xale bu jigéen mosul sëy dañ koy jëfandikoo itam ci doom ji nit ki njëkk muy taaw mais bu xam ne benn wéykat mosu ko génne mu ngi door a génn moo ñëw bintu fikrin bay doomee xelaat bintul fikrin mooy nit génne ca xelaatam andi naa la bikkiru min banaatil afkaar saadirin xilaat gudaaji ñàkk paal waaye xilaat la boo xam ne nag jëmm ji ko yore di dunde dundee wutee na ak su jëmm lool tuji laa des na ko huññi xayaan ngir kersa firi dayin ci la bay muj sa din gëre guñu suube sax faram xam naa séet yi sax mala li neen xam na nu mu baaxoo di mel waaye nag xereef la ci li ma jox tax na beneen mu ray la ko jox bu bokkul ak ma la ne min di mu ray sëli yow comme ni nga demee ak man ni ma demee ma dem bay wax ne dama la tagg bu ma seete yow ni nga toll dama xawa a xam kersa ci suma xasida may ko jaarale ci taggu handa mel ni nitu temps rek lay tagg ma taam na yu ma ci def yoo xam ne wuute na yeneen xasida ay tagg yi parce que ma dégg ni nga toll la gis nga bu baax a baax waafat ka dikkal na la bikrun xeeg bintu fikrin kay doomi jigéene xelaat saadirin kuraaji nëbbu na kuraaji ñàkk faal tuji laa bu def na ko feeñal xayaan ngir kersa firida in ci lambay mujsadin gëre gu ñu suube saafaran bal li nekk an su haje fa musnitiina gëlëm ak mbéy la gu bokk ci way lappi gëlëm yi ñu nekk caati bekoor talupuhum ñuñ dana leen tapp tappe ujurriya way tappe ngelaw yi ilal kiram jëm ci way tedd yi tasarruf fa de ña de way xonte li am li ma bëgg wax sax mooy xasida bi benn gërëm gu baax la gu xam ne ñi ko moom dañoo bekkoor seeni gëlëm yëpp rab lool ñu dese gëlëm gi ci waruwaay ñu def ko muy daan waruwaay ñuy wut kërim bu leen dimbale man dama nekk nit koo xam ne yu bëri dama ca xanaa daal wàllu adab ba tax naa xasida bi mu rafet waaye moom rek laa am ci lu rafet ma def ko na muy lu may dimbandikoo pour sa am ngërëm pour am sa ngërëm muy lu may dimbandikoo pour ci yow moo tax man dama nekk ci bekkoor samay gëlëm yëpp laaf loof ma benn gëlëm bu xam ne moom laa war da jëwlee këriñ yëngatu bu baax a baax am ngi torox lu dëgg waaye nag suufewul mu tayibil mutanabbi saayar la bu xam ne du torox lu mukk booy jàng diwaanam na nga ne moom ku muy tagg dana la tagg waaye du tuutil boppam benn yoon de filo <laughs> benn yoon nag waaye dafa am ñoo nag dafa am nuñ war a waxee ak ñoom ki diggante moom waxi daf wii la laaj moo tax ñu wax seen diggante wax ne lay parce que ban li fi nekk en tuhadifa musrifina ah, gëlëm la gu bokk ci way lappi gëlëm yi ñu nekk jaati be koor te lu fuhum dana leen tappe ko juriya way tati ngalaw yi ilal kiraami jëm ci way teddi aru fëti yele way konte xudiyat dundalees na ko moom gëlëm googu berok sil ab harayni ci aji yombi ñaari xar yi muy narjas ak yasamin waam jada sàmm na mu bilaay di ceeb wal yaadiid ak yaadiid ay xeeti gàncax la kullal mam jadi gépp ak sàmm mu ne mu nekk gëlëm goo xam ne xam na xont xam na caawo xam na yafalab waa teeru bi xam na yafalab waa àll bi narjas ak yasamiin ñax yu nooy la ci tooli dër yi la nekk lay nekk yarkati jur yi dëkkee ci pay yi ñoo koy xam da ko yàq da jox seeni gëlëm su ko defee dañ leen a gubal andi leen bu beneen ak jotaay ñu daal leen gubal andi leen noonu lañ leen daa dundalee waaye duñ leen xewe di leen bàyyi ñi dem ci toolee di ñaayale ñu nekk ñax yu nooy yu neex a lekk buy xeet ak yax diit ay ñax lañ yu dëgër waaye ñaxi xàll lañ waa xàll bi ñoo ca yafalee seeni gëlëm du dañ ko yàq di leen andil waaye dañoo xëy xeewi leen sàmm leen ca ba ngoon ñi andi leen mu ne gëlëm gi nag yàgg nañ ko jox xont ci narjas ak yasmin muy ñaari nax ñaari ñax yu noy yi waaye yàgg nañ ko sàmmi tam ci xeet ak yaad it muy ñaari ñax yu dëgër yi maanaam li mu bëgg a wax mooy xasida bi waxi péye ngi ci waxi xàll ngi loolu mooy li mu bëgg a wax nee na liñ miinoon boo demaan ci dëkki pays ñoom la seen waxinu arab daan gën a xoyof boo demee ci dëkki àll yi ñoom la seen waxinu àll daan gën a diis mu ne lu ci de waxi pays ni ki mbiru tooli dara mbiru tabax usloobu waa pays bi la ciy jël arab yi xoyof la ciy jëfandikoo du andi luxa bu xóot a lu ci de usloobu lu ci de waxi àll lu mel ni àll yi jaar ci ndend yee gaj yi usloobu waa àll bi la ciy jël day jël usloob bu diis moo tax xam na ñi jox ko xonte ci ñaari ñax yu noy yi muy narjas ak yasamin waaye xam na itam ñu sàmm ko ci ñaari ñax yu dëgër yi muy xeet ak yaatin dana am loo loo rek ñëpp ci am soxla amul nit ak pay amul nit ak àll mooy loo jëm ci wàllu yàlla wàllu diina lool nag doxoyof comme usloob waa kaw gi waaye doxoyof itam comme du diis itam comme usloob waa àll bi kon dafay nekk ci digg bi xëy na kon loola nam ca lu ñuy wax noonu la noonu la jégganee usloob ndax xayrul umuri awsatuha dina ko baax a baax ma tax xasida bu rafet la wax dëgg yàlla oto ya dunda lees na ko bi raxsil afharay ni ci yombal ñaari afhar yi wa am jadat te mu sàmm belaya di ci xeet wal yaadidi kullal mam jadi gépp ak sàmm gépp ak sàmm gis nga ko bu baax a baax ah, li muy wax nii am na ci loo xam naa ci dara am na ci loo xam naa ci dara am na ci loo xam ne affaire wëy affaire wëy bu baax a baax a baax ah, dama dama ko def bu liggéey mais am na ci ceeb li may wax nii lu ma lu may dund la xam naa ko baax a baax ah li may wax nii xam naa ko baax a baax ah, affaire wëy maanaam wëy dama ko def bu liggéey waaye am na am na lu ma ci xam bu baax a baax am na lu ma ci xam lan moo tax li may wax nii xam naa ko bu baax a baax xam naa ko bu baax a baax xam naa ko bu baax a baax Ah, bind xasida wan ko borom xam-xam dëgg dëgg dëgg dëgg mu yéemu ci dëgg loolu li mu ko def ay yoon la li mu ko def ay yooni yooni yoon la li mu ko def ay yooni yoon la waaw loolu li mu ko def ay yooni yoon la eh, dafa am ku ñuy wax ah. sabaqat ilayka maa dalami bawakiral xirbaani bayna musayen wa muxarridi axtaara aqtaarin mata asra biha tayful xayaali yuhayyadi min kulli maalamin duwayna najmi la yasmo ilayhi tarfu baadal min jadi wa tanofatin fatfadatil adyali la tahdi manairuha wa khallin junjudi masmulatin majnubatin masbuwatin madburatin sadral khaliyatil musadi wa hilaluha aliya sifatika wal hula fa atat bahijata kahinin wa muqalladi mu ne sabaqat jiitu na moom gëlëm gi ilayka jëm ci yow maha dalaami ànd ak lëndëm gi bawaakiral xirbaani way sab ganaaru yi baaxañ yi bayna musayayin ci diggante aji gunge wa muxarridin ak aji wéyal mu ne gëlëm la koo xam ne teel naa xëy lu baaxañ di teel teel a xëy moo gën a teel a xëy te itam bi mu xëyee yi koy gunge moo ko ñemeloo yoon wi ñi koy wéyal moo ko sawar loo ci yoon wi mooy ñu bëri ak yow tey sama cofeel ci yow moo jiitu seen xam la te bu ma la soppee ba léegi heure bu ma heure bu ne lu ma la hóoloo laa di gis heure bu ne lu ma kontaanee ci yow lay gis sabaqat jiitu na moom gëlëm gi ilayka jëm ci yow maa talaamee ànd ak lëndëm gi dafa jóg ànd ak lëndëm mu jiitu ba waa Kiral Xirbaan way sab ganaar yi baaxaañ yi baaxaañ lu muy teel teel a xëy gëlëm gee ko jiitu bay na musayyaan ci diggante aji gunge wa muxarridin ak aji wéyal li muy doon doon dox lëndëm ñu koy gunge tax na ragalul yoon wi ñu koy wéyal itam tax na tayalul mais xam naa la lu yàgg am ci yow lu yàgg te boo ko bisu tey bi lu ma la óoloo rek laa gis boo bisu tey bi lu ma la gërëmee rek lay gis wataja sama toggoona moom gëlëm gi axtaara axtaarin ay wëradi ay gox yu xam ne mataasa waxtu warañaane bi haa ci ñoom tayful xayaali jeneeru xayaal yoo yet def na ko tiital mu ne walanteeru jëm si ci yow moom gëlëm gi tax na koy jaar ci ay gox yu xam ne jeeneer lu jaar ca sax mën na tiital nit kooku mën a jaar ci ci lu dul jeeneer mooy bëgg laa gërëm loo ak bëgg jëriñu ci tagg la tax na koo kuus ci mawdon bu mag bu raglu muy mbiru nit yàlla yi xam ne toog mel ni mu ca wax sax xaw ko woon ñeme waaye gannaaw bëgg naa jëriñu ci tagg la te seen melo yi nga xame subaana ko ragal ragal dana ko ñeme ñeme lu mel ni dafa bëgg ñëw ci yow waaye gox yu raglu mu am mu walanteeru pour fitt ko wata jof sama toggoona mu axtaara aqtaarin ay wóoradi ay gox yoo xam ne mata asra waxtu wóor a bi aa ci ñoom tey bul xayal di jeeneeru xayal jeeneeru jeeneer yu haya dem na ko tiital min kulli ma alamin ci bépp doj du way na naj mi bu xees dalañ bi mooy bu ko jege lool ay doj yu gudd yoo xam ne xaw na ñoo xàgg ci biti wa suraya muy koronu di dox ay doj yu gudd yoo xam ne xaw na ñoo xàgg ci kaw ka bu muy ci xéeg wala muy koronu wala muy ci xéeg xam ne layes moo du yëkkateeku ilay jëm ci moom a tarfu gis bandal min min jët yi ci gannaaw doj yu ndaw yi doj yoo xam ne yéeg ci doj yu ndaw yi da leen séenu taxu da seen mu da leen mooy say maqaama jàng nii rek taxul nit xam ko nga kuus nii rek taxul nit ko nde kowe gum kowe léegi nag maqaama bu toll noonu nag nga ne dangay wax ci borom ne la ngay wax ci doom wala ñu ne min kulli ma alamin ci bépp alam du way na naj mi bu yees da lañ bi la yees moo du yëkkate ko ilay jëm ci moom attar fu gis baadal min jadi ci gannaaw doj yu ndaw yi ñu ne ko waawaa watanoo patin ak xàll fattabatil asyaal bu daa ji ci lapit mu jaar ci ay xàll yoo xam ne yu du gindi mana iruha ay manaaraam la kadi du gindi mana iruha ay manaaraam waxallin ak yoon junjutin way boromi toj mu ne ah Salla bëgg a àgg na ma jaar ci ay xàll yu yaatu yoo xam ne amul benn mënaara buy gindi nit tax ma jaar itam ci ay yoon yu naqaree dox yoo xam ne kom doj la waaw bëgg laa tagg tax na ma tagg moo tax ma bu yaatu ndax mbiri nit yàlla yi amul am te itam mu nekk mbir moo xam ne léeg-léeg nga dugg ci lay rek moo lay conduire. waaye nit ñi mën a mën a gindee ko ci aada yooyu du cee gindee te loolu bu baax a baax tax na ma waxee daal lu ma wekk daal ma dugg ci ay sew la wata lafatin ak àll fatfatatil adyaali bu ci lafit la tahdi du gindi mën a iroha ay manaaraam waxal leen ak yoon jun judin way boromi doj masmulatin hal yadayni hupp galawu samal fadral xalitil musadi majnubatin sare suñu hupp janoob fadral xalitil musadi masbuwatin sare suñu hupp saba mooy janoob benn la matburatin sare suñu hupp daboor mooy samal benn la fadral xaliti ci dënnam aji jaxasoo al musaadi bu daa ji xeet mu nekk xàll yoo xam ne ku ko fit dañ nga dara ndax ngelawu tàngoor laal na la ngelawu sedd laal na la nekk xàll yoo xam ngelawu tàngoor laal na la ngelawu sedd laal na la rane masmoo la teen bare bu ñu ëpp ngelawu samaal maj noo ba teen bare bu ñu ëpp ngelawu jënoob masbuubatin àll ba de bu ñu upp galawu saba matbuuratin te de suñu upp dëboor sabral xaliiti ci dënnab aji jaxasoo al musan bu daa ji yee gëlëm yi la jaar wa hilaaluha tey koddaayam aliya sifatika mooy way kowee say melo wal hola aji takkaayam faa ci sababu loolu atal dikk na mu bahijata kaahilin di aji rafet ci jokkare wa muqalladin ak ràññuwaay mu ne gëlëm gi nag nekk waruwaay kural si ci yow te jaar ci yii koddaay liñ ko koddaayalee ba mu rafet mooy tegge ngeen teg ci tegga yooyu say mel say melo la te kaay yi ñu ko defal mooy yi ci doq géeg yi mel noonu xam ne rafetal la say melo la moo tax ranguwaay bu rafet la am naka noonu jokkale ju rafet la am maanaam li mu bëgg wax mooy xasida bi am na tàmbali bu rafet digg xasida bi itam lu rafet la cat li itam lu rafet la yépp nag ki ñuy tagg moo ko rafetal ndax da koo tàmbalee lu askanam toog meloy ki ñuy tagg mu am husnul ibtidaa mu rocceeku dugg ci meloy ki ñuy tagg mu am husnul taxallusi mu daal di ko tëjee itam tëjin wu xam ne déggoon ak déggoon ak déggoon ak ki ñuy tagg mu am husnul muxtatam mooy husnu ibtidaa'i bihi arju taxallusa min naaril jahimi wa arju husna muxtatami waaw mu ne am naa husnu ibtidaa te amee ko ci tudd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ibnu hujjata moo ko wax maa ngi ciy yaakaare a taxallus min naaril jahim maa ngi ciy yaakaare husnul ixtitaam baax na ko mu ne am na baraatul batla am na xusnu taxallusi am na baraatul maqta yëpp nag ci meloy ku ñuy tagg la ahyeeta li suhara i siara famtadahu jamia man madahum billati fiika loolu sa jikko yi moom la wéykat yi def jàngeekaay ah sa jikko yi moom la wéykat yow wéykat xamatul mbaax bay tagg nit waaye nag bala yu baax yi ñoo gis yow rek moo tax ku ñuy tagg rek moom lañ koy taggee tagg wu ne rek am nga ci cër ah yeyta li soara i soara famtadahu jamia man madahuhum billadi fiika allah na toogu arju qabulaka wal amana li musairin bidunobihi misla alhadiyi muqalladi wajilin limaktasabat yadaahu musfiqin xajilin min asatri almusawwadi muhridi xaliqin bi axlaaqi tabaahi dahruhu ورهانه إن لم تداوي وتفتدي يرجو السعادة والوصول إلى العلا لولا وجودك بالزمان الأبعد mutamanniyan walladina tawassatu kabida samaay ala masiyil akbudi wa bi fikratin mablulatin wa asimatin wa qalbin lil bitalati muxlidi ñu jàng lool léegi gëlëm gi la doon melal mu ne tarjo dana yaakaar xëbboo ka sag nangu yaakaar na nag bu dikkee nangu ne ganam nga ndax danga nangu ne sa gan la xasida bi ñu ngi cee yaakaare sa wal amaana ak wóoluloo ñu ngi ci yaakaare dugg ci sa garante li musaarin ñaal ku ñu mandargaal bi sunubihi ci bàkkaaram mislal hadiyi ku mel ni hadiyu muqalladin kadi ku ñu ràng ndax xasida bi ki ko wéy tey dala ci tagg nit la koo xam ne bakkaat yu bari def na ci moom mandargaay ne boo amul ku ko dimbale dafay xalal dafa mel ni xat yu boobu ñi gàcc ràng mi xotti doq gi mandarga la ci ne suñ ko jëmale mooy dee tarjo dana yaakaar xabool a tasak nangu wal amaana a góoluloo li musaarin ñaal ku njamal ku ñu mandargaal bi dunoo bi ci bakkaaram mislal hadiyi ku mel ni hadiyu muqalladin ka de ñu ràngal wajilin ku daa jàq li ngir li nga xam ne iktasabat fàggu na ko yadaahu ñaari loxoom musfiqin ku daa ragal mu nekk xasida boo xam ne ki ko wëy yaakaara dugg ci sa làq ku jaaxle la lu ko jaaxal mooy ay bàkkaatam ay liggéeyam yu bon xajilin ku daa mina satri ngir bind mooy ngir lu ñu bind al musawwadi la di lu ñu ñuulal muy koo xam ne ni mu peesalee sahifaam ay sayiaat xaati sax mu ngi ci rus muxridin ku daa ji noppi nekk koo xam ne dafa jaaxle ba xamul li muy wax wala dafa rus ba xamul li muy wax al ixraatu mooy noppi koo xam ne xel mu gag moo ko waral ndax jaaxle wala xel mu gag nde gàcce moo ko waral wajilin ku daa ji jàq li ma ngir li nga xam ne iktasabat fàggu na ko yadaahu ñaari loxoom musfiqin ku daa ragal xajilin ku daa ji rus mina satri ngir lu ñu bind al musawwadi la lu ñuulal muxridin ku daa ji noppi ngir kersa wala muxridin ku daa ji noppi ngir njàqare xaliqin ku daa ji jamar bahruhu gannaawam bi axlaaqi tabae ci diis diisi xaqi jàmbur yi dere xaliqin kuraaji kuraaji jama zahro gannaawam bi alaaqi tabaye ci di di si àqi jàmbur yi wala xaliqin kuraaji wel reyaanoo tayleem bi alaaqi tabaye ci di di si àqi jàmbur yi in lam tudaawi boo ko garbalu wa tabtadi ak boo ko jotul dafa boot xaq ba gannaaw gaa ngi def góom yow rek yaa ko mën a faj dafa boote àq bu buñ ko sisiree du dese dara yow rek yaa ko mën a faj jërme ko bu baax a baax soxla na daal ku ko dimbale ci tayam ndax doomi moom lu ñu a faj la léegi-léegi soxla na ku ko dimbale ci ëllëgam ndax sisir day waral ñàkk ak ëllëg waaw soxla na daal ku ko dimbale ci àddinaam ndax gaaf ak liggéeyam feeñ na ci àddinaam aussi soxla na ku ko dimbale itam ci lu mu defaree àllaaxiram ndax gaaf ak liggéeyam gàllankoor na lu bari ci liggéey àllaaxiram xaj na loolu mooy lim bëgg wax daal mu ne xaj na loolu mooy lim bëgg wax ah xale xin ku daa aji jamar wala ku daa aji wel bi àllaqi tabain ci aji waay xaqi jàmm mooy ci tëj tëji xaqi jàmbur yi zahru ko gannaawam ci tëj tëji xaqi jàmbur yi wari hanu ak tayleem in lam tuddaawi boo ko gargalul watal tëddi ak boo jotul yarju dana muy yaakaar ak saadata texe wal wusul ak joti ila noo laa ci kowe fi samaani ci jamono alama di juraaji sori ji yiw law la wujoodu ka bu du doon sag bëgga doon ku kowe bëgga am texe bi kulli maaniha ci jamono boo xam ne bu duudoon ak yow de dara baaxul jamono boo xam ne su duudoon li nga fi ne ñëppay xalaku jamono boobu ci lay dund te bokk ji ñëpp te bëgg a bokk ci ah jamono boo xam ne su duudoon li nga fi ne kon dara du fi baax ñëppay xalaku jamono boobu ci lay dund moom nag bokk na ci ñëpp waaye nag bëgg nay xam ak texe bëgg nay xam ak kowe mu def la ngay jaaruwaay ci loolu yarjoo dana mu yaakaar as-saadata texe wal wusul ak jot ila loola jëm ci kawe yi fi zamani ci jamono alamaati ju daaji sori ji yiw loola wujoodu bu du doon sax am mutamanniyan moom mu daaji mébét sa walladina lefam ña nga xam ne tawasatoo diggu nañ kabida sama digga asamaan ala masil ak bu dee ànd ak dox ak ku ñuy jéem dafa bëgg ànd ak ñi mel ni kuy jéem ñu seetlu ji nga xam ne dara raxu leen nekk fa la bëgg a nekk fañ leen a tudd fa lañ ko bëgg a tudd liñ xam loolu la bëgg a xam te moom muy koo xam ne lépp mu am lu mu demee te man yan biroo mu daal di mbébét so wala dina lefam ñi nga xam ne tawassatoo diggu nañu kabila sama ci gaasamaan alama suyil ak guddi ànd ak doxal ku ñuy jëng wa bi fikratin ak ci xalam maglulatin bëri bu ñu maaxal ànd ak xelaatam bu ñawati xanaa de fane ñawati gi feeñut fii de xam naa day toroxlu rek dégg nga waaye lii mën dabawoo ci ku ñawati wa asimatin dina wa qalbin ak xol muxallidin bu daa ji jeng bu daa ji gën mooy bu daa jeng lil bitaala ti jëm ci neenal xam naa sax du ko am gis-gis ci yenn yi du ko am dogu ci yenn yi te itam xel mi tëdd rek la bëgg ànd ak nag dafa bëgg daal li góorgóorlu yi bëgg te yaakaar ne bu jaaree ci yow dina ko am kon ñu jàng lool ba beneen yoon yi wa fahuwa al bi hawaahu haysu fa haysu safa li kulli mugarridi wa yarumu sa'yan wa waanin musaqun bi hududihi rawma tarihi al aqadi fa ida aqadta lahu jiwaaraka lam yaxaf min mubriqin abadan wala min mur'idi fa ida jadabta bi daqhihi fa aqamtahu lam yahtabil bi musaffidin wa musarridi innal karima wa anta saaka muammalun li fikaaki masfodin wa xunyati musfidi baax na boobu wa yarumu dana mu takku sobwal wirdi sell ak wirda bëgg na wirda wu sell al wirdu mooy ndox mu nekk ci barab nekk feegu kaayab ki mar léeg muy fanaane mu ni doo dogu jaamu yàlla bi nga xam ne danga nga caa feeg ci lenn waxtu ndax nga dee ca dundalee sa ruux loolu mooy wirdu mën naa doon ay jukki alxuraan yooyu jàng mën naa doon ay limeraak yooyu julli mën naa doon ay siikar yooyu wax mu ne moom nag loolu bëgg na bëgg na caa jëlee ak sell te bu demee ba ne na jëfandikoo wirda xam gi xawa xam ci moom doole day tax moom du mën a sellal wéeroomu dana mu sàkku safal wirdi sell ak wirda wawa te moom mukaddirun aji naxalee la bi xawaahu ci bànneexu bakkanam walla wawa te wirda mukaddarun lu ñu naxalee la bi xawaahu ci bànneexu bakkanam haytu sara fu mu sell li kulli muxaridin ñaal bépp aji weet ci yàlla te ñu bëree ñii weet di góorgóorlu ci yàlla ñoom wirde yoo xamee nañ ca sell lu bari ci ñi deferu deferoo ndax sellal gañ ko sellaloon moom ñàkkaa sellalam tax na bu amul ndimbal xooluhun ne mën na caa deferoo wayaroomu dana mu sàkku saayan lëggéey wawate moom saayan dox wawate moom haanin ku ñu jéng la moosaqun ku ñu dëgëral jéngam la bi xudooti yi ci bànneexam raw ma tarihi kem saa kem saa ku kuñu sànni ala xaati karaaji jékki mooy karaaji lafañ ku bëgg dem la waaye nag xusuusu nafsi moo ko jéng moo tax bëgg lafañ laam bëgg nay dagg ay maqamaat yu kowe kowe kowe waaye tënku gum tënku ci bëgg-bëggu ba kanam lu ko gàllankoor la ba dem fenn moom ci góorgóorlu boppam manu ko xanaa daal ku ko dimbale ci la yaakaaree loolu wa yaroomu dana mu sàkku san yan dox wa watte moom aanin ku ñu jéng la mosaqun ku ñu dëgëral jéngam la bi xudooti ci bànneexi ba kanam xam nga ko buy dem ci ndimbal la koy amee raw ma tarihi kem sàkku ku ñu sànni xalaqaa di ku daaji sax ku daaji lafañ bëggam gi daal comme bëggag lafañ mu ne fay daa xaqatta boo pasee nag lëxoo ñexal ko jiwaaraka sa xettali su fekkee nangul nga ko ne yaay sëriñam bam nekk ci sa biir làq dugg ci garante bi nga kon lam yaxaf dum ragalati min mubriqin caaji melax abadan faw wala min muridin du càggeen aji dënnu dootu ragal kuy melax dootu ragal kuy dënnu boo ko làqee kon hóolu ne dana mucc kuy saa xatta boo fasee la wañaal ko jiwaara ka sa xett li su fekkee nangu nga koy làq ko ne yaay sëriñam mu ci sa biir karanga lam yaxaf duma ragalati min mubriqin jenn aji melax yow man ci benn bis nag abadan faw wala min muridin du caageen jenn aji dënnu kon xam na ne yii gàllankoor nit dara du ko ci gàllankoorat fa ida jazabta boo ñoddee bi dafin yi ci pëdëgam saa xamte hoo topp nga taxawal ko jamono bi comme kuñ jéng la soo téye pëdëgam ñoddi ko ba mu taxaw lam yahtabil du mu faaleeti bi musaffidin ci aji jéng wa musarridin ak aji dàq soo ko yëkkatee ba mu taxaw léegi soo ko yëkkatee yow ba mu taxaw nga dimbale ko bam mu mën a dem kon xam na ne kuy jéng du ko taxatee taxaw kuy xoqatal du ko ta du ko ta du ko tiitalati xawaa mooy kiy jéng ndax damay gàllankoor nit ci def lu baax seytaan mooy kii xoqatal ndax da ngay nekk ci lu baax mu bàyyi xel yàq ko ci ñu mu bàyyi xel la ci mel ni ki la waafu ci yoon wi rek fi ngay jaar fi la bëgg nañ nga tiit ba daw dëpp ndax bal dem fa nga doon dem mu ne xam na ne bu ci sa biir kaadaanga sa law hawa du ko gàllankoorati seytaan du ko tàgg teggeeti ci siratullahi al mustaqim ndax ku ni yow rek la xam naa damay jàngale amoon du mu de ah du mu ko de ah we daa jasabta boo joon boo ñoddee bi xame yi pëdëgëm faa xamta hoo nga taxawal ko mooy boo ko jubbantee boo ko dimbalee ba mu sax ci def lu baax gannaaw yaa ko dimbalee lam yastabil bi musaffidin ci aji jéng wa musarridin ak aji dàq nañu àggali téere ba li ci doon bëriwul tey daanaka rek dégg nga innal karima karim man ida zulima afa wa ida suila ata wa ida ataba mastaqsa kooku mooy karim karim muhammadun ku ñu yaakaar la li fi kaaki maswadin ci xob bi ku ñu jéng wa xunyati musfidin ak koom ak aji maye waanta te yow saaka yaay karim karim te nag yaa ko dog moom la ñoo yaakaar ne kuñ jéng moo lay jéngi moom la ñoo yaakaar ne itam euh, kuñ moom la ñoo yaakaar mayeem itam innal karima naka karim waanta te yow nag saaka yaay kooku karim te nag yaa ko def muhammadun kuñu yaakaar la karim te nag yaa ko dog muhammadun ku ñu yaakaar la li fi kaaki masfoodin ci xob bi ku ñu jéng safat dafay firi jéng feelam safata li sulaasi yi waxoon yetti musfidin ak koom ak maye di maye feelam asfada arab danay wax safat mooy may jéng la asafadu safat mooy li wara di wax sa sanqal xam nga sa kersa nit boo ko jëriñee rek mu rus la wa sababu bii firi may ci la musfat bàyyee ko sababu bii firi jéng ci la masfat bàyyee ko faslam li dahrin kunta samsa nahaarihi wal bad mu ne faslam yal na nga mucc yàlla bu la tarajot yal na ngay mucc rek li dahrin ngir jamono wala ci jamono boo xam ne kunta nekk nga samsa nahaari yi de jantab bëccëgam bila kusufin yaatadi wal badra nga nekk de weer itam fii ci jamono bi bila kusufin ci lu dul muuru yaatadi bëgg dana mu jàkkati dañ lay ñaanal mucc yàlla bu la dara jotati ndax feeg yaa ngi mucc rek jamono de leer ni ñaa ngi gindee ko ci sa xam-xam bi ni ñaa ngi teddee ci sa mbaax gi loolu moo tax feeg yaa ngi nekk rek nit ñi de gindee ko day tedd sa jamono yaay weeru guddim yaay jantu bëccëgam nekk jant boo xam ne doo jàpp nekk weer boo xam ne itam doo jàpp benn yoon kon ku lay ñaanal salaama dafa ñaan leer sax ci sa jamono rek. tey waaye dégg nga ali ku doggoor la ku ma ko feeg jamonoom fee yal nañ fee ndax wéedu ay say bokk nga wa hada duaun lil bariyati saamilu ñaanal gi la ñaanal nga des fi du yow ñaanal ñëpp laay ñaanal ndax sax nekk fi ne njëriñal ñëpp la wali ak ñaalam mbooloo ittaxadat ka moom jàpp na mu la xis ngay làq waaye mooy tata xay suma ko siyaat fu waxay san mu ngay taw xay suma ta temps fu mu taw lu xule ak itam mbooloo mi yàlla booleet la nga xam ne saa suñ tiitee ci sa kaaranga la ñuy làpp si am mucc saa suñ tagee ci sa tiranga la ñuy làpp si am tiranga ci sa barke la ñuy làpp si am tiranga kon bu tiitaange amee yaay seen tat yaay seen tata waaye itam bu taw amulee yaay seen taw gis nga bu baax a baax wali ummatin ak ñeexalam mbooloo taxidat ka moom jàpp na mu la xis nan nga de tata làquwaay xay suma ko si at fu mu tiitee waxay san mu jàpp la nga de taw xay suma lam ta at fu mu taw lu hulee moom lay leeral ci wéy wi ñoon iyësta koo bu ñu tawatee xabban mbir mu diis mbambare te kun nga nekk min dooni hii fa ko xees bu ñu ragalee tiis yaay kay dox seen digganteeg tiis wa ba duñ ca gis dara te nag nit yàlla yi sama borom dana leen di yërëmee xeet léeg-léeg balaa nar a wàcci waaye fuñ nekk seen nekk ga sax du ca amati ida nasalal balaahu bi ardi qawmin wa kaana saalihuna bihi talasa dafay am ida nasalal balaahu bi ardi qawmin wa kaana saalihuna bihi talasa dingu baax a baax aw yattaju wala ñu yaakaar hot marraxa yi bi way màggi xamemtee bi te saxet danga leen ca wala mu xam luñ bëgg te muy bëgg-bëgg bu rëy dana sottee ci la yàlla may kon ku la ñaanal des fi daal ñaanal njëriñ sax fi ñaan mucc sax fi rekk la saxet a texee na alla yaa ci sa taaru xar kanam sa taaru cëlmaay incha allah texe la ci sa jamono wasama te itam te njëkkate koo ji kawe la ci sa jamono dina ko baax a baax sama borom tabaraka wa taala tànn gim la tànn jamono bim la dajalal dajaa xam cir tànn gi la yàlla tànn jamono bi dajal nga dund ko jamono booba dajaa xam cir moo tax ne wa manin tama ko askanu namu li dawi saadati jëm ci borom texe yi yasaat dana mu texe ah baax na foofu gis nga baatu yasaat ak saadat way wu mujj ci téere bi mu ngi ko tàmbalee ci baat buy tegtale saada mu ngi ko tëjee ci baat buy tegtale saada li ma yaakaar mooy harfan bu rafet la ci mujj bu rafet loolu la foog ne moom la ci jublu ndax bind kat yi dañoo xereñ loolu la foog ne moom la ci jublu yàlla ñu ko yàlla boole defal ñun ñëpp yal na yàlla àggal ko ci barke def ci dégg njëriñ suñ ci wàcce xata yëpp mu jégal ñu ko lépp luñ ci wàcce sawa mu nangul ñu fulal ñu ko yàlla bu ci wax rek de suñ cër mu jaay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam waaw هكذا إخوة الإيمان في كل مكان قد اختتم السير التدريس والتعليم والتشريح من هذا الكتاب المبارك فنسأل الله تعالى له ولجميع المسلمين طول البقاء وصحة البدن وأن يرزقنا subhanahu wa taala al ilma wal fahma bima samicna wa yarzuqana jamian iqtidaa sunnati nabiyihi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa xulafaihi bi xurmatihi sallallahu alayhi wa sallam assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu